وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قلنا بن سنتي يالله جلتي أنت صلى الله عليه وآله وسلم نيون بتيتي معارج ومعارج ومفاتح الصعود في حضرة الجمع والوجود صلى الله عليه وسلم يكسي ورنانتي تورم بيغا خامن موم موي المصور موم موي كي دي اجي ملالي مانام Euh, ci jotaay bi weesu euh, gisoon nañu li nga xam ne moom moo aju ci différence maanaam bi nga xam ne moo am ci diggante alxaaliqu ak albaariu ak almusawiru maanaam ne borom subhaanahu wa taala ngir ne moo nattale mbir yi ci ni bind ci lenn lu ci nekk dafa am lu mu ko tànnal ci ne noonu la ko nattalee ngir bindee ko loola. Euh, niki noonu mu nattale tamit ci lan la koy bindee maanaam à de ban matière première la koy bindee. Euh, albaariwu moom mooy ki leen amal ki leen sosal waaye gisoon nañ tamit ci biñ tollee ci albaariwu li nga xamante ne moom mooy yeneen xeeti mbir yu ci nekk ki noonu différence bi nga xam ne am na ci xaaliq ak baariwu bokk na ci mooy ne xaaliqu mooy dañ koy wax ci lépp waaye baariwu dañ koy wax ci lépp loo xam ne borom ruux la mooy comme nit ak jinne malaaka yi et cetera ak lépp loo xam ne dundit la maanaam mooy animo yi euh, ni ki noonu day tekki ki nga xamante ne moom mooy setal maanaam mooy setal mbir yi mooy ki nga xamante ne tamit moom mooy moo mooy sori te soril lépp loo xamante ne ak ñaawteef la wala ak yàq-yàq la euh, al musawiru nag mooy ki nga xamante ne moom mooy melal maanaam mooy jox forme mbir yi euh, kon maanaam moom mooy gannaaw ba nga xam ne nattale na ko ne ci nangam laa koy bindee ci nii laa koy doxale et jëm amal leen gi mu leen di amal génn ci ñàkkam indi leen ci am loolu mooy baarewu mooy bara waaye bu fekkente ne nag léegi nag forme bi leen di jox maanaam gannaaw ba projet bi comme les projets sortent de terre léegi nag nga xamante ne nag léegi dañuy am benn forme bu bu bu clair ba pare am ay caractéristiques yoo xamante ne dañuy distinctes yu différentes loolu kooku moom mooy al musawwiru euh, gisoon nañu ci jotaay bi weesu daanaka ci jotaay bi weesu ci yaatal leeral tour boobu lan lay tekki ci la ñu nekkoon Euh, ci tënk moo benn bayit nag lañ ci hmm, indi woon mooy huwa almuxsinu alhaadi lahu alxalqu fantaqa lahum maqtada fi zaatihim xayru hayati maanaam huwa moom yàlla almuxsinu maanaam boo buggee xam almusawir li muy tekk mooy al almuxsinu aji rafetal ji nga xam ne ndax moom borom subhaanahu wa taala lépp lu mbind daf koo bind waaye bind ko ci anam gi mu gën a rafetee alhaadi mooy aji gindee gi maanaam ngir waxoon nañ ko tamit mooy euh, xalaqa فهدى ثم هدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى lahu alxalqu lahu ñeel na ko nag alxalqu mbindeef yëpp waaye fantaqaa mu daal di tànnal leen set seppil leen seppil leen lahum ñeel leen maa lépp loo xam ne iqtadaa war na te yelloo na fii zaatihim ci seeni nekk-nekk xayra hayati gën ji jëmm maanaam gën ji posture bi ñu war a am posture bi ñu war a am forme bi ñu war a am nañu war a mel bi ci li ci gën lenn lu ci nekk loolu la tànn loolu la la yàlla tànnal euh, kon euh, borom bi kon subhaanahu wa ci kaw loolu moom mooy almusawir gisoon nañ tamit mbind gi nga xam ne moom ak suuf si ak tamit teqantal gi nga xam ne moo nekkoon ci bind asamaan ak suuf si ak ni nga xamante ne loolu la bindee doomu aadama mu nekk tamit ay euh, ay ay étape comme ni nga xamante ne noonu la ko wax wa xalaqakum atwaara moom moo leen bind ci ay étapes ay phases yu wuute voilà mu bind leen ci ay phase yu wuute euh, moo tax maalakum laa tarjuuna lillahi waqaara wa qad xalaqakum atwaara voilà lan moo tere ngeen jàpp ngeen jël yàlla wekk ko te ne moom moo leen bind ci ay étapes yu wuute euh, niki noonu gisoon nañu ci euh, borom bi subhaanahu wa ne dafa bind moom aadama alayhi salaam mu nekk ci forme maanaam forme ah image maanaam loolu li muy tekki nag mooy meloom ngir ne sawara te sawara ndax dafay tekki maanaam melal dara jox ko ay image maanaam jox ko ay ay ay ay caractéristiques distingué loo ko ay ay qualificatif am voilà ay maanaam nu muy mel nii lay mel lii mooy meloom lii voilà loolu moom sawara day mel noonu te waxoon nañ tamit ne sawara day tekki tamit taxay yàlla maanaam mooy imaginer wala yooyu comme ni nga xam ne comme ni euh, sa sa sa sa sa sa maanaam sa sa war a muy bi maanaam euh, bi nga xamante ne maanaam ak am na ay yeneen i détails yoo xamante ne ci jotaay bi weesu yooyu yaataloon nañ ko ci bunt boobu ci di leeral borom bi subhaanahu wa taala maanaam tur boobu lan lay tekki maanaam turam boobu nga xamante ne euh, moom la maanaam mooy jéngal tamit mbir yi comme ni nga xam noonu la ko alxuraan wax na maanaam jéngalal mbir yi maanaam kon euh, léegi moo tax borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne noonu la meloowee tur wi nga xamante ne moom mooy borom tur bi moom mooy ki nga xamante ne lépp loo leen gis moom moo ko teg jox ko forme bi mu war a nekk alloué ko ay caractéristiques melal ko na mu war a mel ba pare mu nekk ci anam gi mu gën a rafete gën anam bi mu gën a mate te amul dara loo xamante ne bind na ko te bind googu nekk loo xamante ne ay xeeti caaxaan la amul comme ni nga xamante ne noonu la ko wa maa xalaqna as-samaa wal arda wa maa baynahumaa baatila zaalika zannu allaziina kafaru fa waylun lillaziina kafaru mina naar ah, binduñu asamaan ak suuf si ak li nga xam ne moo nekk seen diggante mu nekk mu nekk ci mbóosóor ci caaxaan noonu déedéet abadan mu ne lool nag mooy njort ñi nga xamante ne dañoo weddi yàlla waaye nag toskare ñeel na ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu weddi yàlla ci sawara bu metti bu bu tar bi nga xamante ne moom moo leen di xaar eh, waaye ba mu bindee kon ñëpp. ne melal leen kenn ku ci nekk mu jox la form bi nga mel ba noppi différencier leen distinguer leen bokk na ci li ci gën a yéeme mooy kenn nuroowul ak moroomam kenn nuroowul ak moroomam ci benn caractéristique ci benn forme amul dara lu nit nuróoleeg moroomam amul loolu totalement de manière parfaite déedéet ngir ne yàlla borom subhanahu wa ta'ala lu mu defar dootu ko defarat Euh, loolu moom moom moom moom moom moom moo tax comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ne balaa qadirina ala an nusawiya banaana maanaam ñun am nañu kàttan ahankay ci lan ci bu yowmal xiyaama ñu dekkil ko ba cati wey yi cati baaraam yi plutôt cati baaraam yi sax ñu ñu ñu defaraat ko ñu yemmalewaat ko maanaam harmoniser waat ko mel kon melal ko nam ko war nañ ko waroon a melale loolu yëpp day tegtale maanaam ni nga xamante ne noonu la moom borom bi subhaanahu wa taala nekke koo xamante ne dafa dafa nekk càppaaculi kenn la euh, ngir ne euh, lépp lu am ci univers bi comme niñ ko gise woon ci njaalbeen gi ci turu yàlla la amee amul benn atome bu lu dul ci turu yàlla la ko yàlla amale waaye tur yàlla bu mu ko amale itam tur boobu ci atum boobu rek lay amal maanaam amul ñaari atome yoo xam ne benn tur yàlla moo leen bokk bind amal amul mais tamit amul beneen tur yàlla boo xamante ne amul ñaari tur yàlla yoo xam ne ñoo bokk amalandoo benn atum loolu it amul ce qui fait que euh, loolu dafay indi euh, le fait que kenn bokkul ak sa moroom te kenn ku ci nekk dafa war a yëg particularité boobu boroomam subhaanahu wa taala fonk gim ko fonk ak naw gi maanaam ak yëkkati gim ko yëkkati ba tax mu jël benn ci turam yi wala boog yenn ci turam yi bindee ko atome bu ne bu nekk ci jëmmam ak bu aju ci ay mbiram maanaam ngir yittewoo gu rëy gi nga xamante ne moom lu ko yittewoo subhaanahu wa taala loolu euh, bu boobaa nit ki dina yëg ne moom boromam subhaanahu wa taala da koo tànn boo xoolee maanaam fi nit di jaar rien que pour mu juddu rien pour mu juddu maanaam euh, fa muy jaar yépp wa waxuma euh, li nga xamante ne moom mooy Euh, probabilité bi amoon pour suuf si exister waxuma boobu waxuma probabilité bi amoon pour moom mu mën a dëkk maanaam déjà ci ca la ko dalee ca maam ya maanaam ni ñuy jurantee ba moom mu yegg si fa mu war a yegg waxuma loolu loolu beneen mbir la condition yi nga xamante ne ñoo am pour que benn ci maamam yi survivre ba tax ba mën a jur keneen beneen maamam moom ci ci ci wàllu yaayam wala ci wàllu papam probabilité yi yooyu noonu ni mu raaree nga xam ne ay milliards de conditions ñoo daje pour loolu am nga bëgg cee boole beneen probabilité bi tax maanaam tout simplement papam ak yaayam xama xamante loolu muy beneen nga ba boole ci le fait amul benn maanaam conditions yi daje yëpp ba ñoom ñëpp ñu fertile maanaam ñu mën a jur euh, ñu nga boole ci le fait que euh, man ni toq man ni yi nga xamante ne mooy bu ñu xoolee wala wala njaam yi nga xam ne ñoo nekk ci man ni bi te maanaam moom lañu spermato spermatozoïde bi nga xamante ne dañoo bari bari waaye goo xamante ne te benn rek moo ci euh, moom moo euh, fécondé maanaam moom lañ fécondé maanaam moo waral dégg nga mu mu mu mën a nekk maanaam moom tey benn spermatozoïde boobu donc moom moo fécondé œuf bi maanaam ci ku jigéen ki pour mu mën pour pour mu mën a nekk pour pour ñu ëmb ko condition yi daje yëpp yi nga xamante ne mënoon naa tax ëmb ba wadd maanaam ëmb ba yàqu lu bare lu bare bari la yooyu yëpp yàquwuñu ak ni ko borom subhaanahu wa taala defare nag boole kook nag tànn ko day tànn defar ko lenn étape par étape ba mu génn ba mu mel ni mu mel loolu moom képp koo xamante ne xàmmee nga war ngaa jàpp ne loolu xeetu ngëneel gu rëy rëy rëy la yitte gu kawe kawe kawe gu la borom wa ta'aala defal euh, bi subhaanahu ba mu bindee loolu yëpp ba mu bindee euh, mbindee fi kasaa xayra xalqillaahi zal isma innahu كما شاء مكسوا بأجمل صورته صلى الله عليه وسلم comme que tur yàlla bu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam da ko incarné kasaa dafa solal dafa solal xayra xalqillaahi gën ji mbindee fi yàlla yi sallallahu alayhi wasallam zal ismu bi le tur ah yàlla dafa jël yenent bi sallallahu alayhi wasallam solal ko tur wii loolu naka la demee mu ne innahu ndax moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam boo bëggee xam dëgg-dëgg kama shaa kéem na mu ko soobe rek mag su woon ci la solee ci la ràngoowe bi ajjmali ci gën jaataaru taaru suurati jëmm maanaam jëmm ji gën a taaru fas maanaam moom la yenent bi solo moo tax euh, euh, comme li sayyidat Aïcha wax radiyallahu ta'ala anha mu ne ka an euh, euh, ka an euh, mu ne ko xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka xuliqta kamaa maanaam yow yenent bi sallallahu alayhi li ma gis daal mooy ne yàlla dalaa bind nga nekk koo xamante ne dangaa deñ dangaa set ci bépp ayib voilà dangaa set ci bépp ayib maanaam loolu mooy mooy côté jikko ji jikko ji ak jëmm ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul ayib amul défaut en du ci jëmmam du ci jikkoom sallallahu moo tax bu daan taxaw ci kanamu seetu danaan allahumma xassin xuluqi wala ci beneen riwaaya allahumma kama ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi wa xarrim wajhi ala naar loolu euh, xadis bu nekk ci bu amam euh, abu ya'la rahimahullah solo ak ñeneen rahmatullah al jami' yonent bi sallallahu alayhi yàlla yow mi nga xamante ne euh, yow yàlla rafetalal sama jikko maanaam ni nga xamante ne ni nga rafetale sama jëmm rafetalal noonu sama jikko waaw ni nga rafetalal sama jëmm rafetalal noonu sama jikko sayyidat Aisha radiyallahu anha moo tax mu ne ko yow daal li ma gis mooy ne dangaa set ci mboolem ayib yow li am sax ne ni ma gis daal mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dalaa bind exactement comme ni nga ko bëggee yow maanaam loolu Euh, muy dëgg gu wér yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da ko bindee exactement kem moom ni mu ko bëggee maanaam c'est comme si daf ni ko yow daal dafa mel ni keroog bi la yow bi la yàllay bind daal da nga ni ko yàlla dama bëgg bakkan bi mel nii dama bëgg bët yi mel nii dama bëgg dégg nga karaw gi boo ko kiiwee mu melee nii dama bëgg loxo yi mel nii dama bëgg maanaam nga wax ko exactement ni nga xam ne noonu la ko bëgg bëgg naam euh, loolu ak li xew dëgg-dëgg ñoo nuru mooy lan mooy ne bi ko borom bi di amal da koo amal ci jëm ci ci ci ay turam ak ay melo moom maanaam ci nekk-nekkam ak ay turam ak ay melo moom ngir ne borom bi subhaanahu wa moom mi nga xam ne mooy ki mat daf koo melal ci euh, da ko da dafa refléter dafa dafa dafa dafa dafa feeñu boppam maanaam euh, génn maanaam muy mel muy muy muy nga xamante ne mu reflété wu ci moom mu yent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kooku la génn amal ko te loolu moom mooy dayoog perfection mm-hmm. mooy dayoog mat te kon bu boobaa moom mooy ki nga xamante ne non seulement ci jëmm moo gën a taaru ñëpp voilà euh, moo tax faaqa nabiyyiina fii xalqin fi xuluqin comme ni ko moom Busayri waxe radiyallahu anhu moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo féete kaw mboolem yenent yi alayhi salaam ci jëmm euh, ak ci jikko faaqa nabiyyiina fii xalqin wa fii xuluqin walam yu daal moom fii ilmin wala karam yi te di jegewuñ ko ci xam-xam du ci ak ci teranga ah? Euh, comme ni mu nekkee ci bu tamit wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan wa xuluqan zahara wal mislu fal mislu qattu lam yura wa lan yura bi sallallahu mooy ki gën a taaru ci mbindeef yi wa akmalul gën a mat ci zahara ci ni mu feeñee ci jëmm ak ci jikko yenent bi sallallahu alayhi moo leen gën a moo gën a mat ci mboolem mbindeef moo tax fal mislu qattu lam yura ku mel ne moom mësifu ko gis benn yoon kese benn yoon rek mësifu ko ko gis sallallahu alayhi wa sallam walam yara fi shiyami maanaam tey ci euh, li ñuy gis ci jikko ci doxalin ci ay jëfin yu rafet kenn mësut a gis lu mel ne yent bi ku mel ni yent bi sallallahu alayhi wala ku ko jege loolu amul euh, moo tax kon moom yent bi sallallahu alayhi wa dafa feeñee ci lan ci jëmm ji nga xamante ne moom mooy jëmm ji gën a mat sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa kaana nekkoon na moom yenent bi sai sallam wa kaana tisaafan kaamilan wa dalila xuz mata qaala kun kaanat ka fii baadi xaswati wa kaana nekkoon na koo xamante ne ba tey xam nga loolu mën nga ni waaw loolu loola ñun gisuñu ko xam nga liñ fi jot a wax ci ni yenent bi sai sallam noona la mel ngir maanaam te loolu di tegtale ne parce que kuy defar ku doon defar sa bopp da ngay defar sa bopp na mu gën a mati mm-hmm. yeneen ci bi sallallahu alayhi wa moom mooy ki nga xamante ne borom bi subhanahu wa ta'ala da ko amal comme moom nu mu ko bëggee ci anam gi mu gën a mate ngir ne moom mooy ki borom bi subhanahu wa ta'ala def tajalli ci moom ci ci nekk-nekkam waaye ci ay turam ak meloom yépp mm-hmm. loolu moom mooy kon da ko ràng rek mooy ne moom kon dafa mel ni bi muy am dafa am ci anam gi nga xamante ne noonu la ko bëggee maanaam loolu mooy jëmmi rek jox maanaam borom subhaanahu wa ta'aala da koo délégué maanaam ak amam moom boppam ak amut boppam borom subhaanahu wa ta'aala da koo délégué waaye wakaana nekkoon na tamit lii firnde loolu ci suñu àdduna bii ñun ci jamono bi ñu gisee yonent bi sallallaahu alayhi nekkoon na koo xam ne ittisaafan dafa melowoo kaamilan ci anam gu gën a mat maanaam daf koo melowoo tur wi Euh, te tur bi sifa bi melo melo bi ci sifatu afaali la bokk ci meloy jëf yi la bokk te loolu noonu mi ngi mooy sifat at taswiir la tudd ak taswiir melal da ko ma ci anam gi mu gën a mat wat daliilu wat daliilu wala boog wat daliila xuz ndax maanaam wa xuzi daliil hmm. wat daliila daliil bi boo bëggee gis liy tegtale loola xuz jàppal argument bi ngi nii boo xam ne bu leer a leer la buy wane ni yenent bi saa sam daa mel looloon mooy lan mata saa yu waxee moom yenent bi sallallahu alayhi kun nangam nekkal kaanat loola lay ne bu nee kun rek affaire bi ne waaw surbu kun la yor kun fayakun voilà loolu doy na firnde euh, ndax xam nga borom bi subhaanahu wa moom mooy melal mbir yi te bu leen di melal day wax mbir yi ñu nekk la ñu nekk comme li nga xamante ne noonu la ko waxe innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun moom daal mbir mi yàlla daal leen dong la su nammee dara danaan mbir moom a nekkal kun fayakun mbir ma daal di nekk exactement kem ni nga xamante ne noonu la ko ne noonu la ko bëggee te loolu kon buy jox form maanaam kon musawwir li muy tekki mooy de day jox forme mbir yi mais ci wax jim leen luy wax kun nekk ñu daal di ne mais nekkul ne day toog di tabax ak a defar comme ni ko nit doon di defaree maanaam bu nit dee defar dara da ngay gis day tabax ak ak eh, di jaxase ay affaire ak eh, di di di di di ak ak eh, ak yu mel noonu borom bi nag dinaa nekkal rek mbir mi ne. yent bi nag sallallahu alayhi wa sallam secret boobu moom daa newoon ca moom am na lu ñu ci jotoon a gis ci bi ñuy gis xaale ko ak baare waaye fii ci mu sawiru am na lu koy gën a firndeel. mooy lan mooy le fait que euh, mu ne kun mu naan kun mbir yi mbir yee ne te li gën a li gën a jafe lay def mooy seen nit di ñëw mu ne ko nekkal diw sàngam mu nekk diw mooma xam nga loolu dafa gën a jafe xam nga tey bu ma nee bu ma nee euh, na nangam xew événement bi xew loolu déjà benn affaire la bu lu tuuti mais lii li gën a euh, li gën a garaaw mooy nga gis nit di ñëw nga ni diw yow mii diw sàng yow mii nii yow mii di ñëw nekkal diw sàngam maanaam bu nekk jëmmi nit ka nga ne ka nga bëggoon mu ne ko loolu moom mooy li loolu moom dara dara gënu koo jafe loolu moom mooy jëmmi incarné lo mbir mi te loolu la yonent bi sallallahu alayhi def comme lan kaf yi ba'd kaf yi ba'd ghazwat ka keem fii ba'd ci lenn ci yi xare yi te mooy la xare Tabuk xare Tabuk euh, nga xamante ne def na ko ak ñaari nit lu mu néew néew comme ni mu saxee ci xadis yi wér yi sax ci saxee bi ak yeneen euh, maanaam rëkk yu xadis yi Yonent bi sallallahu alayhi euh, dañoo toog xam nga booba nag xam nga xare Tabuk dafa tàngoon dafa metti woon gars yi dañ daan war dañ da nga ci daan gis sax koo xam ne day war mbaamam mbaam mi mënatul a dem mu wàcc yanu yanu bagage yi ndox voilà te ak tàngoor yi ak gannuus gi gis ngeen gannuus gi gannuus mooy ndox mooy suuf bare bare bare xam ne boo ci dox parce que bii dugg ci biir gis ngeen désert bi ni muy mel voilà boole tàngoor bi ak nit ñi euh, benn waay buy ñëw mu ne ko kun aba xaysama nekkal abu xaysama waa ji ñëw nekk abu xaysama nit ki noonu noonu la amee keneen ku ku ñëw fekk ñu ne ko ah diw de fekk dañ ko daan diw de yi diw de daa gannaawal maanaam da ba banal ko ca gannaaw daal moom mbaamam moo moo moo moo kii quoi moo moo moo moo amatul doole wala gëléem bi parce que dafa méttoon xam nga ne bu gëléem bi mbaam yi demee bay lottu ci ci ci ci yoon bi mooy mooy mbir mi metti na waaye bu ko defee nga gis gars yi di commencer. ñaa diw de ki ne da nga mais nag dafa bëri ñun tudde al muxallafuna maanaam ñoo xamante ne dañuy dox ba mu yàgg alxuraan da koy nettali yi boo soo sootu tawba ghazwatu Tabuk daanaka mooy à part de page de de de aaya ama xaa sootu tawba 129 aaya la la ko dalee ci ñaari aaya maanaam 35 ba 37 loolu euh, ghazwatu Hunayn lay net lay lay wax mbiru ghazwatu Hunayn waaye li ko dalee ci 37 à part de 38 aaya bi ba cent vingt neuvième aaya bi lépp ci sóoratu ci ci a ah, ci ghazwat Tabuk lay wax xare bi amoon Tabuk rek lay nettali lay wax ci lay ci lay intervenir euh, boo xoolee foofa da ngay gis moo am na ñoo xamante ne euh, euh, loolu da gis dafa dafa am ñoo xamante ne dañuy dañuy dem naan naan yéen itam sax zanni wala taftinni waaye waaye jox ma ndigal ci ma mm-hmm. toog parce que man xam nga fu ma dëkk en fait ñoom dañ ne euh, gars yi tabu kii waa Ruum mooy byzantin yi l'empire byzantin parce que ñoom la waroon a xeexal euh, ñooñu seen jigéen ñi dañoo rafet te man affaire bi daf muy fitnaal quoi dama bëggoon nga bàyyi ma ma toog rek. <laughs> voilà borom bi ne ala fil fitnati saqatu hmm? voilà ne ñoom lay waa ñoom ñoom ci seen bopp ñoo dugal seen bopp ci fitna ba pare parce que jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen nañ dem xeexi ji ñoom ñuy toog di gannaawal naan ay di di lay lay lay xam nga lool du layu dara moom ay foofu jigéen ñi dañoo rafet te man damaa <laughs> dañ may fitnaal moom <laughs> kon jox ma ndigal ma toog lool moom mooy li nga xam ne du layu dara nga gis ci ñoo xamante ne tamit yeneen lay yi ñu doon joxe mooy comme comme naan waqaalu laa tanfiru fil xar naan bu leen bu leen dem ci tàngoor dafa tàng quoi c'est que foofu nag c'est que nag dafa tàng borom bi ne qul naaru jahannama ashaddu xarran waxal ne na jahannama moo gën a tànga moo gën a taraw tàngoor nga gis ci tamit ñoo xamante ne euh, euh, euh, ay ay ay ay ay ay xeeti Euh, euh, ñoo xamante ne dañuy tout simplement dañ naan gars yi bi ñuy départ dafa fekk xam nga rek yeewooguñu moom dañoo yéex ci <laughs> ak ak pare gu ñu amaguñu matériel yu doy nangam waajtaay bi xam nga et cetera voilà comme li borom xam ne law araadul xuruj la a'addu lahu uddatan walakin kariha Allahu bi'athahum fa thabbatahum wa qila 'udu ma'al qaa'idin ñoom da nga ciy gis ñoo xamante ne dañ doon wax lan euh, dañ doon dañ da ngay gis maanaam ñu ñu yéexantu di ci euh, ba ba kii ba finalement après ñu mujj toog maanaam amuñu ñu ne way finalement on n'a pas les moyens finalement dañu xawoon a jàpp et puis finalement lii finalement là borom bi nag subhaanahu nee na ne buñ ko waajaloon nag buñ ko waajaloon buñ bëggoon a génn danañ ko waajal buñ bëggoon a génn dem xe boo ànd ak yent bi salaas na kon daañ ko waajal waaye nag yàlla ci boppam moo bañ ñu bokk ci yiw boobu génn looloo tax mu daal leen di dijj moo tax ñu ne leen diju leen ànd ak ñi diju maanaam nga gis ne loolu beneen mbir la boo xamante ne képp koo xamante ne da ngay yéexantu ak di bañ di bokk ci lu baax loolu kooku loolu aw jànj la ci yow hmm. parce que loolu mooy ne euh, borom bi subhaanahu wa li mu li mu war a wax mooy garaawul amul yow yaa yow yaa yow yaa yaa am problème maanaam ndax yow la bu bu bu la yitteeloon di nga di nga di nga dinga nga nga jóg di nga ci am di nga ci wàccal mais comme que yitteelu la loolu moo indi problème bi mais nag aussi loolu dafa juddoo ci le fait yàlla ci boppam mu buggul ci yow yiw maanaam moo la xañ yiw bi moo tax ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xew-xew yu fa xewoon da nga gis nag ñoo xam ne danañ dem ba ci yoon bi affaire bi tàng affaire bi metti ñu ñibbi ñu dellu nga gis si ñoo xam ne dañ naan woy man euh, et puis tool yi su sama tool yi dama ko waroon defar dama waroon lii non il ma dellu quoi nga gis keneen ku ne la wooy man sax bi may dem sama yaay da bon yóbbu ko woon wala àndu ci woon bon man dinaa delluwaat nga gis maanaam nga gis gars yi xeetu lañ la ñuy joxe pour mën a dellu parce que affaire dafa métti moo tax euh, moo tax kii ne euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhu ne saar boobu moo tudd sóotul fadiha maanaam saar bi nga xamante ne day xaw yu sutura nit ñi parce que lu tax parce que saar la boo xamante ne ñoom moo tax aay diñ doon wàcc par benn benn wa minhum wa minhum wa minhum ngay gis na ba nee ñu ñëpp kenn ku ci nekk da ngaa mujjoon a tiit parce que da nga foogoon ne ba moytu dinañ jékki-jékki tudd say affaire maanaam amul kenn ci gars yi lu dul <coughs> naafeq yi lu dul ne sóoru taw ba daf laa daf laa daf laa daf laa daf laa wuñ te booy jàngat suuratu tawba di nga gis loolu di nga gis ne saar la boo xamante ne borom subhaanahu wa taala daf ci xaw yi sutura nafiq yi maanaam de telle sorte que euh, seeni comportement seen façon doxalin seeni façon waxin seen lépp la la xaw ce qui fait que ab naafeq boo gis rek danga gis dana dugg ci benn ci groupe yooyu nga xam ne moom lay dénoncer euh, léegi kon bi mu demee noonu nag mu am nag mu ne nag képp koo xamante ne yàlla bëgg na ci yow yiw di nga di nga ñëw ku bëggul ku yàlla bëggul ci yow yiw nag da nga dellu da nga da toog moo tax ku bàyyi rek ñu ne diw de yi diw de yi banaa diw de yi diw de yi banaa maanaam da la diw de si diw de affaire dem na dafa metti ci moom maanaam toqi nag quoi dafa toqi waa ji dellu na quoi moom ñu <laughs> mu ne ah kon yàlla moo buggul ci moom benn yiw moo tax mu mu mu mu toqi bañ ni ko Abu Zar toqi na beneen waaye daal ni déedéet mbaama ma yéex rek mbaam bi maanaam mbaam ma mu waroon mu yéex loolu tamit moo dal Abu Xaysam radiyallahu taala anhuma mais ñoom ñaar ñëpp boroomi ngëneel lu màgg lañu radiyallahu anhuma euh, bi mu waxee loolu nag borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne de toute façon bu fekkente ne mbaama ma toqi rek dinañ ñu dab si waaye su fekkente ne nag dafa bàyyi tamit maanaam mooy ne parce que yàlla bu buggul moom benn yiw waaye danga gis moo tax ba bu dee bu kaawu abu xaysama ak kaawu abu abu zar radiyallahu moo tax nga gis ku ci nekk ba mu séenee dañuy jékki-jékki rek toog ci campement parce que dañ daan def ay campement siin benn silhouette buy ñëw fële di xëcc ak i bagage am yenn affaire bi diis muy muy muy xëccu di di dugal di di dox tànk bi dugg ci gànnuus géeg génn muy muy muy muy def effort quoi pour ñëw de wa ndax mbaam ma bane ko fa léegi bana parce que mënatu koo yóbbu nga gis kenn ba mu ñëwee muy séen ne yent bi sallallahu alayhi ku njëkk mu ne ko kon abu xaysama nekkal abu xaysama bi mu ñëwee mu nekk abu xaysama keneen mu séenati keneen mu ne ko kun abu abu zar nekkal abu zar mu nekk abu zar radiyallahu anhu loolu loolu xeetu may gu rëy rëy la te loolu moom du du tuuti moo tax yonent bi sallallahu alayhi huwal badru moom mooy weer wu mat wi lil aqmaari njël mboolem weer yi ndax day leeralaate mu al maanaam weer yi ñiy leeralaate ñoo ñu tuddee weer yi ñi nga xam ne dañuy gindiwaate yonent bi nag sallallahu mooy weeri weer weer wu mat wi buñ ko comparé yeneen weer yi yeneen étapes yi shamsul anaami moom mooy jant njollooru mboolem mbindeef yi moom mooy ki nga xamante ne moo leen di orienté di leen teg ci lu baax sallallahu alayhi wa sallam li fi nekk mooy salaaxul baraaya moom mooy jëmmi yiwin mbooleem nekk ci mboolem mbindeef yi mboolem nit ñi moom mooy kii ki nga xamante ne mooy ci sell bi nga xamante ne mooy ci sell jëmmi seelu sellte moom mooy sëkk rek jëmm sellte googu nekk ci képp ku sell sallallahu alayhi ngir forme bu baax bu ne jikko ju baax ju ne lu rafet lu ne benn ci ku mu mën a doon ak ci lu mu mën a ne du dara lu dul reflet wu namu maanaam lenn ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tey boo gisee nit jikkoom mu am benn jikko bu la yéem a yéem ci moom maanaam nga ni nga nga dem ba ba jikko jooju sax jommal la nga ngir ne dafa rafet xamal ne benn reflet rek la ah wala takkandeer dong la ci takkandeeri jëmmi ni mu nekk ci yeneen bi sallallahu alayhi wa moo tax moo gënoon a rafet jikko ñëpp mais moo gënoon a taaru ñëpp ba ci yent yàlla Yuusuf alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a taaru yent yàlla Yuusuf alayhi salaam moom genn wàllu taar lañ ko joxoon yent bi sallallahu alayhi moom taaru gu mat sëkk lañ ko jox jal bu moom mooy kii bijji maanaam muy xëcc muy aasiyi bi xëcc xayrin mboolem yiw wa ni'matan ak xéewal ndax lépp moom moo ko melowoo moo ko ràngoo sallallahu alayhi wa sallam wa ruuxu moom mooy ruuxu mooy esprit wu shu'unin mboolem mbir yi maanaam ci aalamu shu xawama ah. mm-hmm. maanaam bi nga xamante ne xam nga shu'un mooy shu'un mooy li borom subhaanahu kulla yawmin huwa fi sha'n bis bu ne ma nga ci dara maanaam euh, dañoo tudd mbir waaye tudd li nga xamante ne moom la nekkoon maanaam dañoo tudd mbir ngir tuddaale la mu nekkoon maanaam euh, moment bi nga xamante ne moom la leen borom bi di feeñal borom bis bu nekk mi ngi ci mbir comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Xadir alayhi salaam euh, wala boog laajee woon si imam Rifaa'i radiyallahu anhu da ko fekk muy jàngale mu ne ko sëriñ bi yow dama la bëggoon a laaj benn question mu ne ko waaw mu ne kulla yawmin huwa fi sha'n bi borom bi wax loolu nu mu demee naka la naka la na maanaam luy mbiram maanaam bis bu nekk moom yent moom borom bi subhaanahu wa ta'aala mi ngi ci ay mbir lool lu muy tekki naka la demee mu togg ak xaw mu affaire bi jaaxal ko bi mu tëddee ci guddi gi mu gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko shu'uunun yubdiihaa laa shu'uunun yabtadiihaa maanaam ay mbir la yoo xamante ne borom bi subhaanahu da koy feeñal maanaam bis bu nekk yàlla mu ngi feeñal ay mbir waaye du ay mbir yu muy sos ci yu bees pourtant subhaanallah am na xadis bu nekk ci mustadrak bu imaam alxaakim imaam ibn Hibbaan tam soroon na ko rahmatullah alayhim alayhima yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ci aaya boobu su kullu yawmin huwa fi sha'n mu ne mu ne eh, mu ne day wërsëgal maanaam day xañe yarzuqu wa yamnaw day day xañe day joxe ah maanaam ay ay ay fee yu muy def maanaam bis bu ne am na ay at ay fee yuy xew yu muy feeñal waaye du ne yooyu bis booba la ko doog a def déedéet maanaam nekkul ne yàlla dafa nekk koo xamante ne bis bu ne day nekk ci ay préoccupation ay yitte di di di def tey lii laa war a def suba may def lii ginnaaw suba ma war a programme lii yàlla déedéet <laughs> loolu yëpp ñun défi mais ay mbir la yoo xamante ne moom dafa am nu mu nammee woon mbir yi ca azal maanaam ba dara dara ci pré-éternité dans l'antériorité absolue moom borom subhaanahu dafa am nu mu nammee woon fekk boobu mbir yi existé wuñu woon réel dañoo existé nekk nekk ci xam-xamam moom yàlla ba pare nekk yoo xamante ne maanaam déterminé maanaam. tey munuñu amul amul par exemple lii nit la lii garab la lii xeer la loolu amul woon ba pare biir waxuma laa nag biir nit ñi ñuy mën a di distinguer ah naan kii mooy Moodo kii mooy Sàmba loolu amul woon mais borom subhaanahu wa ta'aala dafa nam ne dafa dafa ne moom dafa namm ne di bind mbindeef yi mais xam na leen ci xam-xamam mosuñu dañ di exister ne dinañu dina leen amal ba pare ci anam sàngam la leen di amale ci nii la ñuy demee moo tax ba namm nammam ajoo ca mbir mooma kàttanam da ko génne da koo da koo da ko exécuté kàttanam da ko exécuté euh, loolu nag bi mu koy amal da daf koy lenn lu ci nekk daf koy tegal daf koy wutal jamono jam war a am wutal ko espace ba war a am wutal ko ay melo yam war a amee wutal ko wërsëg gam yam ca war a nekk et cetera loolu nag mooy mbir yi nga xamante ne nag bis bu nekk daf fay feeñ du ne daf koy tàmbali mais da koy feeñal euh, waaye àdduna gi nga xamante yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam jamono jooja nga xamante ne dara nekkul woon lu dul dara secret yi borom bi subhaanahu wa moom la woon sallallahu alayhi wasallam te ca jamono jooja ci la nekkee koo xamante ne moom moo tax ba mbir yi a manam mbir yi meuna exister ba mais nañu nekki won ci comme xolé programme bo xamantene euh, ci comme manam langage assembleur bi nga xamantene par exemple langage binaire la zéro 0 ngay lay gis zéro zéro euh, alayhi wasallam mom moy jëmmi moy point bi nga xamantene mo nek ci diggante zéro bi ak un bi nek point bobu nga xamné mo leen relier donc moy secret zéro bi hmm. parce que zéro xam nga zéro ben nombre la boo xamante euh, euh en fait dafa dafa dafa dafa boole exister ba paré ñak exister dafa bolé exister ba paré ñak exister ba paré dafa bolé indispensable manam mën ta ñak parce que zéro su amul lenen dara du am moy point de départ mbir yi mais li ko jëmmal mooy un bi yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam mooy secret bi nekk ci zéro bi ba pare nekk li jëmmal un bi nekk li jëmmal un bi loolu moom loolu ci mboolem mbir yi nag la maanaam xam nga jamono jooju nga xam te ne ci langage comme mbindeef yi ci bu ñuy joxe exemple dañ naan langage assembleur lañ nekkoon zéro un rek la loolu ce qui fait dara différencié wul ak leneen mais ci étape bi nga xamante ne mooy étape suivante bi mooy bi muy ñëw nag léegi ci système d'exploitation ordinateur bi ci lay amee ay léegi ci lay amee ay ay différenciation yu mën a existe par rapport ak programme bi nga xamante ne moom la am maanaam moom moom maanaam programme bi nga xamante ne moom lañ adapté pour mu mën ko liir loolu nag moom moo indi moo indi euh, mbindeef yi tamit noonu lañ demee maanaam walillahi masalu ala mbindeef tam noonu lañ demee dafa am moment boo xamante ne ñoom ñëpp amuñu différence du zéro un rek ngay gis maanaam amul euh, euh, euh, amul luñ mën a différencier nangam ak nangam mais bi ñu ñëwee te xam nga ordinateur mënul comprendre lu dul langage boobu langage binaire boobu rek la mën a comprendre lépp loo ko jox ordinateur ni lépp loo ko jox da koy retranscrire ci langage boobu noonu pour mën ko comprendre. mais à travers système d'exploitation bi yow motax ci nga koy mën yow meuna meuna meuna a mën a jëflanteeg ordinateur bi après nga out ay logiciel lo xamante mom nga ci installer pour def li nga bëgg def et cetera té logiciel yooyu té ay programme la ni koy programmer mais mom buy décrypter logiciel bi da koy décrypter selon hein, langage bob non langage binaire bob boobu euh, léegi nag moom waa ji euh, kii manam borom subhanahu wa taala au départ maanaam maanaam moom bi muy amal mbindeef yi maanaam bi mu leen amalee à partir de maanaam li nga xamante ne amul comprendrewul woon maanaam amul woon dara luñ mën a différencier moment boobu étape boobu nga xamante ne amul dara luy différencier ak leneen loolu moom moo tuddoon aalamu shu'un mooy euh, en français euh, su ma juumul dañ ko wax le monde des modes wala le monde des trucs voilà nga xam te ne amul dara définition mais mbir ay trucs la rek ah c'est des trucs c'est c'est c'est <laughs> amul dara lu différencier ak dara mais <laughs> alamu shu'un mais bi ñu yéegee ci beneen étape bi yonent bi sallallahu alayhi nag mooy logiciel bi nga xam ne ci la borom bi subhanahu wa ta'ala gravé lépp lu war a am ak lépp lu nar a am ak mboolem na mu war a amee distingué ko kooku kay moom rango rango turu al-Musawi sallallahu alayhi moy barzakhul kawni barzakhul kawni moy barrière bi nga xamné mom mo dox digënté manam mo dox mom moy barzakh bi nga xamné moy barrière moy intermédiaire bi nga xamné mom mo dox digënté borom subhanahu wa taala ak mbindeef fi parce que borom bi subhanahu wa taala mom dafa am numu mel dafa am ay turam ak ay melom am numu mel am nekk-nekkam bu dee ci cote nek nek gi moy essence bi moy zat amul manam amul espace amul temps amul euh autre lenen amul autrui manam kuñu ñu kenenal moy ghayr ak ghayriya amul euh melo amul attribut amul dara luñ ko mën melale manam dafa rek nek lo xamne dañ ko joyal manam dafa absolu rek mais ci feeñuwaayam yi nag bu koy def ci turam yeeg meloom yi la koy defee comme ni ñu ko gisee woon mais euh, yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam la jël def ko barrière maanaam intermédiaire entre moom ak mbindeef yi maanaam borom subhaanahu wa ta'ala dafa mës a exister mbindeef yi naka jekk seen existence dafa gaar mais seen diggante moom la yonent bi sallallahu alayhi la fi teg ngir. ngir ne mbindeef yi mënuñoo jëflanteeg borom bi directement faw yonent bi sa alayhi mooy barrière moo tax moom la melal turam yéeg meloom yi ngir mbindeef yi mën a am accès ci moom te terewul malgré loolu malgré loolu ay étape maanaam solo étape bu ne ci état bu feeñuwaay yi da ci gis euh, mbindeef yi mënuñu ko maanaam ba ba muy mel ni ñun comme ñun nii nii nii am na ay étapes yu bëree bëri maanaam day am lii mooy waral lii lii waral lii lii waral lii à ay barrières ay hijab mooy ay kiiraay yu bëree bëree bëri ci lañu ñun mën a dékkoo mbir yi sinon ñun mënuñu dékku par exemple bu ñu bu ñu nee kàttanug yàlla tey kàttanug yàlla yàlla dana koy wan waaye bu ñu koy wan ñun dafa am nu ñu ñuy dékkoo mbir mi maanaam tey yàlla du ñu wan kàttanam ñëw rek par exemple sans benn barrière mu dóor mu wan ñu kàttanam loolu mbindee fi attanuñ ko nit ki noonu mboolem meloom yi noonu la mel mais tamit yent bi sallallahu moom ci jëmmi boppam ñun amuñu accès boobu noonu directement noonu rek faw dafay amal lii loola amal maanaam day mel yent bi sallam day reflété wu ci lii loola reflété ci leneen muy muy nàndal mbir yu nekk selon mbir mi na mu maanaam selon niveau bi selon étape bi ak kiiraay ya nga xamante ne moom la askanoonteel noonu la mbir yi demee ba ñu mën a ñun gis àdduna bi ni mu nekkee nii ba ci suñu monde matériel bi voilà mi ngi mel ni rek tey wallaahi masalala benn coquille boo xamante ne tey loo bëgg a def ci biir maanaam comme nen bi maanaam faw danga ko jaar ni ci coque ci coquille ci coque bi voilà borom subhanahu lépp lu muy jaarale jox indi ci mbindeef daf koy jaarale ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy barrière sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbir lépp loo xamante ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi dafa am ñaari caractéristiques yooyu dafa am caractéristique wàll goo xam ne comme ni ñu ko gisee woon ci jotaay yee weesu dafa am wàll goo xamante ne côté mbindeef yi la mooy le fait que. moom mooy ruuxu mbindeef yi parce que esprit wu mbindeef li tax univers bi di taxaw esprit boobu yent bi la salaa salaam comme ni ñu ko gisee woon ci jotaay bii weesu euh, yaakaar naa euh, bii la wala ba ko jiitu ne moom mooy mbir atul kaw ni salaa salaam maanaam moom mooy euh, mooy seetu àdduna bi seetu àdduna bi la salaa salaam ce qui fait yow loo gis ci àdduna bi rek xamal ni dafa refléter maanaam yow en fait reflet bi yonent bi saa sam refléter ci loolu nga gis. mais du jëmmi mbir mi moo tax mbir mi euh, comme niñ ko yaakaar naa mosoon nañ ko jotaay rimaxe tey lii nii lii may gis nii walla ma làmb ko di ko daj ah wala may dégg wala ma mos ko yëg ko en fait nekkul ci sama biti sama biir la ne euh, ñàkka moo tax même loolu borom subhaanahu wa ta'ala def kiiraay gu doy waar de telle sorte ka may am impression que ni li may gis wala ma koy dégg ci ci biti la ne fekk nikkul ci biti ci sama biir maanaam sama xel sama biir la ne. moo loolu moom moo tax ngay gis ñaari nit di gisandoo benn mbir mu tegu ni xam nga ne xàq xamit changé wul lii mais ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk buy gis lii bokkut ak li muy sa moroom li muy gis kenn bokkut ci sa morom li muy gis. Euh, borom bët yu baax yi dañuy gis ñeneen ñi borom bët yu baax yi ba pare seen système kii baax la ñoom ni ñu koy gisee bokkut ak ñeneen ñi te ni ñu koy gisee ki yor ab luppam lupp def nii moom dina gis yenn mbir yoo xamante ne keneen ki du ko gis ki yor euh, kii euh, microscope yi yooyu di dina ci gis loo xam ne keneen kii ci xool ak bëtu neen du ko gis et cetera mais c'est parce que li ñuy gis en fait affaire bi su ñëwee ah comme niñ ko xamee. day dugg day maanaam comme ni ñuy wax routine bi da koy jël reflété ko mu ñëw ci digg ci ginnaaw fii ci bopp bi ci yuur gi te foofu daal lëndëm këris bi mu foofu la koy traité après ñun loolu la ñuy renvoyé ñu jàpp ne gis nañ lii alors que ñun gisuñu en fait du gisuñu ko ni mu nekkee ci biti mais li ñu gis mooy li nekk ci suñu biir maanaam li li traité hmm. traitement information bi mu traité ci biir yuur gi lañ gis ñun ce qui fait Euh, euh. <laughs> te pourtant loolu ñu bari xamuñu ko ñu baree bari foog nañ ni ñu ngi gis di ngi dégg et cetera loolu moom moo tax léeg-léeg kenn wax dara ñun nii tey buñ ko déggee kenn ku ci nekk li muy dégg ak sa moroom li muy dégg du doon benn euh, d'ailleurs traitement yooyu ci lañ à de constat boobu et que nit ki ndekete son bi du dégg lépp et li muy xool du gis lépp ci lañu di maanaam di commencer def ay ay fichier MP e comme comme comme MP3 e nga xamante ne audio bi di ngand au départ mais comme xam nañ ni moom nit ki du dégg lépp ñu tuutal ko compresse bu ko defee bu nekkee fichier MP3 e day mel ni mi ngi dégg li maanaam day mel ni fichier bi ak départ wax ji benn la fekk xaaju bay nekk benn <laughs> compressé nañ ko dind ci lu bare bare bare ci son bi mais moom day jàpp na li muy dégg benn ngir lan ne ngir ne moom déggul jëmmi mbir mi li muy dégg mooy li nekk ci moom maanaam li muy dégg ci moom la ne nekkul ci biti li muy gis nekkul ci moom namaam nekkul ci biti ci moom la ne nit ki tamit li muy yëg di ko mos nii bu mosee dara mu mu saf nangam en fait nekkul ci biti ci extérieur déedéet ci biiram la ne voilà ngir ne traitement information bi yow yow reflet wu information bi en fait nga am amuloo jëmmi information bi loolu lu mat a bàyyi xel la sinon xaqiqa mbir mi moom soppeekuwul moom loolu ñu ne al xaqiqa ak laa tatabaddal hmm. réalité mbir yi duñ soppeeku lii réalité am soppeekuwul ni mu nekkee nii nii la nekk sauf que ñun niñ koy xoolee léeg-léeg kenn xool ko jàpp ne daa xaw a bëla lii nii kenn ki jàpp ne dafa vert man ma jàpp ne dafa ñuul man moom dama jàpp ne daa ñuul <laughs> ah nga gis léegi doo gis noonu ñuy werante naan lii daa vert ki naan déedéet dafa ñuul ki naan la non mais yéen doo leen di wax ne nii bu la ah <laughs> parce que ni mbir mi ñun li ñuy gis nekkul jëmmi mbir mi la gis li ñuy gis mooy li nekk ci suñu bopp ñun maanaam li li dugg ci suñu yu loolu tax borom bi subhaanahu wa bi muy wax eh, ni nit ñi mu ne fa innahu laa ta'mal absaar walakin ta'mal quluubu llatii fi suduur en fait lii lii silmaxa ci nit lii silmaxa ci nit dubat yi waaye lii xol bi la xol xol bi xol yi nekk ci ci dënn bi la maanaam problème information rek la silmaxa problème information rek la sinon da ngay gis silmaxa day day xool day gis léeg-léeg sax parfois moo tax ñu ñu bari léeg-léeg de mën lañ leen foog ne comme si dañuy gis fekk gisuñu voilà euh, ni ki noonu léeg-léeg nga gis nit yor làmmiñ te du mën a wax et cetera ñu gis day yor làmmiñ ak yépp mais du mën a wax nit ñi léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne dañuy mën lekk benn mbir mi jëmmi mbir mi ñun ñi ñu lekk ko kenn ki kii ne la saful xorom ki ci des ne la sa xorom si ëpp na parce que li traité information bi ci ñun la ne nekkul ci biti maanaam kon ñun li ñuy yëg suñu sensation yi suñu information yi ñuy jot suñu xam-xam yi ñuy am suñu mbir yi ñuy gis ak di ko dégg yépp nekkul ci lan nekkul ci suñu lan suñu biti ci suñu lan biir la ne te loolu subhaanallah li ko indi xaqiqa bi lii rek la mooy ne mbir mu ne mbir mu nekk dafa am lu ko amal ba pare dafa am benn euh, existence boo xamante ne euh, nit ñi mënuñu koo déterminer maanaam mënuñu koo xam ne mënuñu koo ràññee mais mbir mbir yépp mbir mooma daf caa ne mbir yépp nag loolu euh, moom la kii scientifique yi di tuddee matière noire la matière noire maanaam mooy xam nañ ni ci àdduna bi yëpp univers bi yëpp yëpp yëpp am na benn affaire bu fi exister ñu duñ ko gis te mënuñu ko constater te duñ ko mesurer mais xam nañ ni benn affaire la bu fi ne boo xam ne mooy lenn lu ci nekk dafa nekk maanaam affaire boobu dafa nekk ci lu ne ci mbindeef yi ci mboolem univers bi daf cee ne moo tax sax univers bi mën a am équilibre bi mu am moo tax mu mën a taxaw ni mu mën a taxawee moo tax mu mën a. Euh, nekk ni mu mën a nekke caractéristique yu ne moom moo tax mu mën ko téye mën ko yor mais nag affaire boobu ñun mënuñu mënuñu ko gis mënuñu ko téye te xamuñu dëgg-dëgg lan la ñu en fait ñoom xamuñu ko mais ñoom xam nañ ko mooy yent bi la sallallahu alayhi wasallam mooy esprit yent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki nga xamante ne mooy ruuxu mboolem mbindeef yi mooy ruuxu existence mooy ruuxul kaw ni mais mooy miraatul kaw ni aussi cest à euh, limay gisni gis ni comme niñ ko waxee yaakaar naa ci bi wessu la wala bi ko setu tay setu bi ni suma ko xolé bu fekkante ne setu bi dafa euh, comme nii ni bi ñu jàkkaarloo maanaam bu fekkante ne setu bi dafa dafa dafa dafa parfait complètement parfait parfait set wit wit wit wit man duma gis jëmmi setu bi duma gis différenciation setu bi mais lan lay gis limi reflet li ci refleté wu loolu laay gis li ci reflété wu rek laay gis en fait xaqiqatan adduna bi yent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo fi nekk ci moom la boroom subhanahu wa ta'ala gravé lépp moom la melal la lépp ñun suñuy gis xaqiqatan ñun li ñuy gis nii ñun yi ñuy gis nii lii lii yii nii en fait du réalité du mbir mi wax naa la sànq ne la ci sa bopp yi la ne moom ci sa biir la ne c'est parce que ñun li ñuy gis reflet wu yent bi la sallallahu alayhi wa sallam maanaam di reflété wu ci yonent bi saa xam wa ni loolu la ñuy gis mais gisuñu jëmmi mbir yi lépp lu ñu làmb daj ko gis ko kii en fait ñun yonent bi rek lañ nekk di mais sauf que xamuñu ko wala bokk ñu ëpp ci ñun xamuñu ko comprendre ñu ne fii yenent bi lañ moo fi ne ñu di ko gis voilà yaakaar naa ne ci jotaay bi weesu la woon ndax ci laa la waxe woon ne la buñ neen diw am na fatxul akbar moom fatxu bu mag bi loolu lay comprendre maanaam loolu lay dem maanaam day gis ne univers bi yëpp du fi gisati dara lu dul ne ndekete jëmmi yonent bi sallallahu moo taxaw lépp moo taxaw fii yëpp. loolu nit ki su demee ba ba am xaqiqa boobu ba mën ba comp gis ko dëgg mu nekk koo lu mu xam dëgg loolu mooy am na fatul ba comprendre ko dëgg hmm. parce que kooku noonu day gis ne àdduna bi dara nekk fii lu dul yonent bi sallallahu mais loolu mooy côté lan côté mi ngi fi mais bu ñu xoolee ci côté beneen wàll gi mooy côté borom bi subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy reflet mooy reflet ngir ne borom bi subhaanahu wa dafa refléter maanaam dafa mel ni ku seetu ci boppam maanaam xam nga bu tax jàkkaarloog seetu jëmm ji ngay gis sauf que fii amul seetu borom bi subhaanahu wa taala ji tey bu ma taxawee ci kanamu seetu bi gis na damay gis sama bopp bu ma waxee mu wax mën a mu wax bu ma yëkkati sama loxo mu yëkkati ko su ma doxee mu dox du loolu lay def yenn bi nag <laughs> borom bi subhaanahu wa dafa seetu ci boppam sauf ko fii li li wuti rek ak réalité bi wallaahi laa mooy ne foofu amul woon seetu borom bi subhaanahu wa seetu ci boppam maanaam feeñu loolu mooy tajal lii feeñu maanaam manifesté wu mooy manifesté wu mais bu manifesté wu loo jëmm jooju mooy jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ar mooy ruux euh, ce qui fait que caractéristique yi mu am mooy caractéristique bu boroomam subhaanahu wa ci wàllu googu moo tax ci benn wàll yonent bi sallallahu alayhi wasallam caractéristique maanaam moom côté borom bi la subhaanahu wa mais beneen wàll mbindeef la boo xamante ne dafa yor caractéristique u mbindeef yi et que mbindeef yi ci moom la ñu génnee loolu moom moo tax nga gis yonent bi sa alayhi wasallam nekk koo xamante ne nekk ki nga xam ne mooy barzax bi mooy barsaxul kaw ni ci lañ nekkoon bi maanaam mooy barrière bi nga xam ne moo dox diggante borom subhaanahu wa ta'aala ak mbindeef yi te xam nga barrière soo yow ko gisee comme niñ ko waxee woon ci jotaay yi weesu da ngay gis ne barrière boo gis day yor caractéristique xam nga luy barrière mooy loo xamante ne day day bokk fii bokk fee day bokk fii bokk fee bu ñu déggee ni euh, frontière ñu am frontière day bokk fii bokk fee voilà tey euh, miir bi bi miir bi miir bi dafa bokk ci saal bi bokk ci néeg bi daa bokk ci saal bi bokk ci néeg bi am na bu xoolee wàll gi dañ ko peinture peinture ni saal bi mais wàll geneen gi dañ ko peinture peinture néeg bi maanaam kon dafa yor ñaari volets yooyu yëpp yent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel dafa am wàll goo xamante ne wàllu borom bi la subhanahu wa geneen wàll gi moom mooy wàll gi nga xam ne mooy wàllu mbindeef yi moo tax ci côté borom bi moom mooy nuuru zaati mooy leeru nekk nekku yàlla gi mooy nuurullaah yi mooy leeru yàlla buñ naan leeru yàlla yent bi la ñuy wax sallallahu moom mooy aynu zaati mooy dëgg borom bi subhaanahu wa ci nekk-nekkam maanaam li muy tekk mooy reflet bi mooy mooy miraat mooy seetu boromam subhaanahu wa ta'ala demee ci côté mbindeef yi maanaam ci côté yàlla ba tey mooy sirru zaati mooy sëkk rek yàlla Si vous ci côté mindé fi existence bi esprit wu existence bi ruh nak moy lan comme ni nga xam li tax nit taxaw de telle sorte que mu de wax di de dox di am représenter di caractéristiques di am passé di am présent di futur ak ce bu fi ruh bi nekatu rek yëpp day dootul univers bi nak existence bi un bi sallallahu alayhi esprit voilà sallallahu alayhi euh, ce qui fait que kon euh, côté moi, mom côté mindef la moy moi des esprit bi euh, xaqiqatu xaqiqa mooy xaqiqatul kaw ni mooy xaqiqa nekk-nekk gi kon ñaari xaqiqa yooyu moo tax yent bi saa sallam nekk xaqiqatul xaqaa'iq mooy xaqiqa ñaari xaqiqa yi ah. waaw mooy ñaari xawsi xawsayni waaw kaaba xawsayni aw àdduna kaaba xaws maanaam ñaari juñ yi maanaam ni juñ yi moom mooy ki dox seen maanaam lépp lo xamantene dafa aju ci côté borom bi subhanahu wa taala ak côté mbindeef fi mom mo len relie sallallahu alayhi wasallam motax suratul kamal mom moy jëmmik mat manam la forme même de la perfection la forme wala l'image la silhouette de la perfection sallallahu alayhi wasallam allati bi nga xamantene il tafat dafa rango le meso melowoo bi ak mali ci gën jaa mat yi melo sallallahu alayhi wa sallam maanaam caractéristiques yi ngay gis yëpp critères yi ngay gis yëpp jikko yu baax yi ngay gis yëpp yu moom yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo ko ràngoo ci anam ga mu gën a mat sallallahu alayhi wa alihi loolu moom moo tax euh, comme niñ ko waxe won ci introduction bi wa kullu ar-rusul wal anbiya dum malaikatu ar-rahman faydu istifa'i sallallahu alayhi wasallam mbolé melo yi ñi dig ci yenent yi alayhi salaam ne yu rafet lañ muy ñi ñu yónni ñi ak ñi ñu soloo ñi ak malaika yàlla yi ñoom ñep bo len boolee maanaam ay bëbb lañu maanaam flux lañ ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci tànn gi ko yàlla tànn belli ko ci mboole mbindeef yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tax jëm yi melo maanaam yu mat yi côté bu ne moo ci gën a mat ñëpp moo tax ci wàllu àdduna moo tax même yi nga xamante ne nit ñi dañuy dañuy jàpp ne affaire u àdduna la te mu nekk lu ñuy mën a taggee nit wala lu ñu lu nit di mën a mate yonent bi sallallahu alayhi moo ci gën a mat ñëpp moo tax yonent bi euh, euh, ba ci ni mu doon solo moo a taaru ñëpp sallallahu alayhi wasallam ba ci ni mu doon waxe moo gën a rafet ñëpp ni mu doon waxe non seulement ci forme wax ji mais ci fond wax ji aussi moo ci gën a mat ñëpp sallallahu alayhi wasallam Euh, ni mu doon tooge ni mu doon xoole maanaam maanaam amul benn caractéristique booy gis ci yonent bi saa saam loolu da gis ne lii meloo mat la ci anam gi mu gën a kawee voilà ni mu doon reetaane sallallahu alayhi wasallam amul lépp lépp loo xool rek moo ci gën a mat ni ki noonu ci jikkoom yi ni mu doon doxale ak mbindeef yi léegi-léegi sax da nga da ngay fogg ne xayal nga nek manam ci ay ci ay ci ay imagination nga nek xoolal subhanallah bi mu ñewé keur sayyidat Maymuna radhiyallahu anha soxnam mu ñëw mu xawa guddé soxna ci nako demal fa nga fa nga fa nga euh euh fa nga nekkon ba heure bi subhanallah imagineel tay bo ñewon kii soxna si nee na bi guddi ki di soxna si nee demal ba nga nekkoon góor bi ah <laughs> maa ngi fàttali ko am na benn gaa bu 2010 la woon 2010 bu waxee daal lu posé question boobu seen jéeti daan ne damay kon damay bulee buntu bi <laughs> doona damay <laughs> buntu bi laay te xam nga seen buntu yooyu daanul dëgër boobu dëgër yonent eh, bi sala salaam de moom moom déedéet dafa dafa tok di eh, négocier wax wax ju neex ju rafet bañ ubbil ko ba pare bam duggé duggee ko dang may fonto dang may yëpp waxul moom xoolal doxal ak sayyidat aisha radhiyallahu anha bi moy bi bi sayyidat um Salama radhiyallahu anha yónnee fekk sayyidat aisha ay mu yónnee ko ndap manam tok maanaam ngir yàqal yentibi sallallahu alayhi wasallam bon ak ay ganam bi mu ñëwee Sayyidat Aïcha gis ko fël ko fël fël bool bi tërël affaire bi toj tuur mais yéen ci sallallahu alayhi xoolal nu mu réagir dafa tourné ne gars yi ah asaarat ah, umukum ah seen yaay daa fiir de mu jeex après nag mu par contre mu ne Sayyidat Aïcha ah, par contre bool bi nga yor te mu nuroog bosam moom moom nga koy fayee parce yaa yàq bosam ak yeneen ak yeneen yoo xam te ne xoolal kaw kaw bi ñëw tuur ndox ci jàkka ji gars yi bëgg ko pamti pam te imagine nga tey gars yi toog ci jàkka ji benn waaye ñëw nit di tuur ndox ci jàkka di sukk bu tuur ndox ci jàkka ji gis ngeen gis ngeen kooku ko nar lañ ko war rajaxe <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laa tuzun bu leen wala laa taqta'u alayhi bawla bu leen yàq bu leen bu leen bu leen ko bu leen ko kii dagg parce que mën ngeen ko indil feebar bu leen ko dagg bàyyi leen ko mu tuur ndox ba pare voilà maanaam jikko yu rafet yooyu après mu ne lan mu ne indi leen ndox ngeen sotti ko fa waaw ñu sotti ko repare nañ loolu mu woowaa ji nag daan ko fii nii ñu nekk jàkkale tudd yii yépp du ko yéwénal fii liñ fi war a def mooy julli jàng alxuraan zikar yooyu daal lañ fi war a def moom moo baax fii maanaam nga gis jikko ak yeneen yeneen i xeetu comportement xoolal ki nga xam te dafa ñëwoon euh, muy dox yenn saa di dox mu jàpp fii xëcc xëcc ni ko taxawal <laughs> gaa yi dañ ko doon rey mais bu dee <laughs> yenn saa di bàyyi leen ko bàyyi leen ko <laughs> mu ne ko jox ma ci li la yàlla jox waaw alal ju bari ji la yàlla jox jox ma ci ah tali bi waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko fekk boobu ñuy doog a gagné butin de guerre gagné doog gagné benn montagne nekk ne ak beneen bi diggante bi yépp ay ay ay jur nekk ceeg ay xeet xeeti alal du bari nekk mais ay mais euh, globalement ay jur mooy ay ay xarak ñoom nagat ñoom ba yépp mun a ko jël li mu a ko lan mun a ko lii wax di ko dalee ci montagne bi ba ci bi montagne bi waa ji dem jiital gaa gis nga jëm jëm jëm seen dëkk dane ya qawmi atu muhammadan fa innahu yunfiqu nafaqata man laa yaxsha al faqr hey gaa yi dem leen ngeen si si muhammad de salaa salaam parce que gis nga dama koo gis non ku doy waar la dama koo gis muy joxe di dépenser dépenser koo xam ne ragalul ñàkk te noonu la daan tooge nekk muñkat bu mag moo dàq muñ ñëpp sallallahu alayhi muñkat bu mag la waaw ndax li ko dal yépp mu muñ ko àndu ceeg mere kenn lu dul xanaa ne yàlla jéggalal sama nit ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yàlla jéggalal sama nit ñi ndax ñoom de dañ xamul jeex dàq sant yàlla gërëm yàlla ñépp comme ni nga xam ne noonu la ko xadis yi di waxee ci bi mu doon naafila guddi yi ba tànkam yi di néew yi sallallahu alayhi wa hmm? di jéggale di jëllale sallallahu alayhi wa sallam jikko ju baax ju nekk maanaam njàmbaare sax moo gënoon a def ñëpp comme ni nga xamante ne noonu la xewe woon tamit ba nga xamante ne li sayyidna Ali don wax naan kaan idax maral bax idax maral qatl ittaqayna bihi sallallahu alayhi wasallam manam bu bu xex bi dan tàng tàng tàng tàng jër moom yenn saa sal moo daan ne ca kanam ñun mu mel ni moom moo ñuy mo ñuy mom dal mo dal tax ba ñun ñi kenn duñu sax saaxe kenn duñu gaañ kenn duñu def dara manam ñun affaire yi mom mo dan ne ca kanam di xex ak ma Madina boobu mooy bi bi bi biñ déggee benn bruit bu bu bizarre mel na ak jàmbal la maanaam ay ay fas yuy yuy daw kër gaa yi commencé tiit ñenn ñi commencé gaa yi commencé sangoot parce que xaaju guddi la <laughs> ñi gën a ñemee sax ñoom dañ doon génn di wootante ku nekk ne sawaay yow sawaay kaay kaay nañu dem xooli ji affaire bi lan la mais kenn ñemewul woon dem moom kese. mais bi gars yi dajaloo bay waaj génn ñu gis ko moom sallallahu alayhi wasallam muy dellu hmm? muy dellu si naan gars yi non lan turaaw lan turaaw bu leen ragal dara waaye bu leen ragal dara seeti ji naa ko affaire bi du woon dara ah sallallahu alayhi te boo dee xool même caractéristique am yi maanaam boo xool ni ko borom bi bind subhaanahu wa taala même ci jëmmam nga xool ni mu bindee nopp yi ni mu bindee bët yi ni mu bindee loxo yi ni mu bindee tànk yi ni mu bindee karaw gi ni mu bindee tuñ yi ni mu bindee biir bi ni mu bindee yaram bi maanaam ak karaw yi ni partie yooyu war a sëq nañ fa sëqi ni mu bindee maanaam loolu da gis ne moom yent bi sallallahu alayhi moo gën a mat ci ñëpp te bu dee tamit ni nga xamante ne noonu la meloon dafay dafa am doole joo xamante ne maanaam da nga daan gis comme li Seydina Anas wax radiyallahu ta'ala anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan ànd ak da daan ñëw ci këram yi juróom-ñeenti soxna yépp mu dem kenn ku ci nekk mu ànd ak yow kenn ku ci nekk mu ànd ak yow jëmmi guddi gi maanaam doog a dem fa mu aaye imagine ngeen loolu ah juróom-ñeenti soxna yépp kenn ku ci nekk mu ànd ak yow sangu farata doog dem maanaam dana xadis euh, yi nag dañoo dañoo dañoo dañoo wuute yenn xadis yi dañ ne da daan ànd ak soxna yi kenn ku ci nekk waaye après day sangu farata pour kenn ku ne am na nag yeneen xadis yoo xam te ne dafa ni da doon ànd ak kenn ku ci nekk mais ci gennu cangaay moom gennu cangaay farata moo tax euh, euh, Abu Ishaq ne maanaam mooy seen setu Seydina Anas radiyallahu anhu daan ne ñun dañu doon wax ne ñu ne Seydina Anas ñom radiyallahu ñoom ñom dañ doon wax nan yentu sallam dafa am doole wiri goor manam nga gis kon manam ci côté yëpp mo gëna mat ñëpp sallallahu alayhi wa alihi wasallam ci côté yëpp mo gëna mat ñëpp te boko ko xol niko borom subhanahu wa ta'ala bindee di nga gis ne perfection bi gëna mat ci jëm yi moom la ko boroom subhaanahu wa taala defal ci mboolem anam yi da ngay gis sax subhaanallah mboolem loo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa da koo bëggoon sax dañuy gis barke bu rëy bii nekk ci biir moom mboolem mbir yi nga xam ne daf ko daan jëfandikoo xoolal subhaanallah awdul arak socc bi mu daan soccoo mooy awdul arak ba bant boobu nga gis ni muy ni mu mën a defaree bëñ ak ni muy fajee feebar yi nga xam ne ñooy nekk ci gémmiñ ak boo boo sàmmoonte ci di ko soccoo li mu lay may ci gudd maanaam ni mu lay dëgërale ci say at maanaam euh, ak vertu yi ci nekk yépp rek te ci bant boobu la nekk te yenn moom la daan jëfandikoo mooy siwaat am na benn jour ma dem Sana fekk fa benn tubaab ko bu jigéen benn genre demi-mère moom mu jël mu jënd ko xam nga un la jar euh, kii boobu socc mu dem jënd ko léegi nag ñaan mu naan xaar euh, gis ngi kii bon kii laay jënd maa ngi naan ko mais pour euh, pourquoi mais man xaw moo ne ndekete du jullit sax mu naan ma mu naan ah li c'est en tout cas c'est plus simple c'est c'est moins cher que le que le médecin c'est le dentiste parce que dentiste bi 3000 euros ngay fay fii kii 1 euro moo gën a <laughs> c'est moins cher waaw ah, et puis même effet bi lay def maanaam wala sax bii gën ko parce que bii dafa naturel maanaam boo xoolee ci mboolem fànn yi day gis ne yenn saa saa li doon même li doon jëfandikoo sax moo gën a ëpp njariñ moo ëpp barke sallallahu alayhi wa yàlla nañu yàlla taar si barke boo leen ci ñi nga xamante ne dañ koy bëgg dëgg dëgg ni ko war a bëgg boo leen ci ñi nga xamante ne dañ koy dañuy